ne bi lépp coupe du monde dinañ ko amal foofee ca Qatar ñenn ci ñi dëkk ci pàcc yi nekk ci àdduna bi dañoo génn rekk di ŋàññi li ni mel li ni mel nag li ko waral mooy ñi nga xam ni ñoo di waa Qatar dañoo jël seen lépp loi àddu ko ci li nga xam ni moo di coupe di monde bi war a am dem sax ba naan ak góor ak jigéen ñu sëyul duñu bokk hôtel te dañuy tere lépp loo xamante ne moom la tubaab di wax acte contre nature maanaam jigéen ak góor jigéen ak jigéen buy sëy wala góor rek bëri nañ sax ba ñenn sax naan dañoo war a li nga xam ni moo di coupe du monde bu ñu dëgmal foofee ca Qatar moom nag émir tax a génn na nag daal di wax ne ñoom nag ngaañ yi leen ngaañ yi sax demoon nañ sax ba am ci li nga xam ne moom la tubaab di wax remise en question taxaw di seetlu lu bëri di xool sax nan la ñuy négocier yenn yi waaye nag dafa ëpp ndax lii dafa am leneen lu mu rax nekkatul ay critique dongo waaye nag dañuy des à li football moom nag mi ngi xamle ni nag nag mi ngi ñaanal équipe bi di équipe bu France jongante jàmm ak salaam moom sax dem na bay wax ni rek que taxawam foofee ci coupe du monde bi am Qatar leeragu ko ba tey à l'échelle internationale tey dañoo xëy rek li nga xam ni moo di WhatsApp daal di bëggee pan international daal la application bi amoon ba tax na nag li dalee juróom-ñaari waxtu ci suba jàpp juróom-ñeenti waxtu ci suba kenn rek mënu woon a envoyé message baa message ci lépp application di whatsapp waaye nag bi lépp panne nag jot nañ koo réglé ci lu yàggul dara moom nag ki nga xam ni moom moom whatsapp nag génn na ba daal di jéggalu képp koo xamante ne rek da doon utiliser li nga xam ni moo di application whatsapp li ni mel nag jot nañ koo réglé ndax lu ko daleek fukki waxtu ba tey li nga xam ni moo di whatsapp ñoo ngi si envoyé ay message te di ci jot ay message ñu ñëw fii ci réew Sénégal ginnaaw ba nga xam ni amoon na léew lu ñuy wax ab nemmeeku tuur maanaam fépp fu dëkk nekk rek fii ci réew Sénégal dina fa taxaw rek fësal li nga xam ni moo di présidentielle jëm ci élection yu dëgmal fii ak 2024 waaye nag Déthié Fall nekk ki nga xam ni moom tamit dafa bokk foofee ci coalition Yewwi Askan Wi nee na dina amal li nga xam ni mooy kaay bokk kaay bopp nag moom dina ko amal foofee ci diaspora bi ndikki ëllëg yem ak ñaar fukki fan ak juróom benn moom nag dafa fas yéene fépp foo xamante ni Sénégal nekk na fa rek te nekkul ci réew Sénégal dina fa amal ab taxaw seetlu ba rek mu expliquer leen li nga xam ne rek moom la ñu narate moom la bëgg ci réew football Sénégal dem sax ba ñenn ñi naan kile di nga xam ne moo di Moussa Fall dafa wérul jamono ñu nekk ginnaaw nag ab enquête bu ñu ubbi ak ay gëstu yi nga xam ni fii ci Sénégal ñu nga ko doon def rek ay source yu leer ñoo xëy rek xamal ne kii di général Moussa Fall mi ngi fii ci réew pour Sénégal ñu ñaw ci langue bi nga xam ni moo di théâtre ndax ki nga xam ni moo di ab comédien di wuyoo si turunu si turu Lamine Ndiaye feebar rek ba nekk ci li nga xam ni moom la ñuy woowee euh, feuille fauteuil roulant moom nag di Lamine Ndiaye mi ngi woote rek ab ndimbal jëmale ko ci nga xam ni moo di première dame Sénégal moom nag di Lamine Ndiaye nee na dafa soxla ndimbal te rek nañ ko dimbali ngir mu faju ndax fi ñu tollu teem sonn na te amul ab moyen buñ ko faji ba tey dañuy demaat tuuti ci coupe du monde ba amal ba ñu war a amal foofee ca Qatar ginnaaw ba nga xam ne équipe bu Sénégal war na faa dem kile nag di njiitu réewu Sénégal yëkkati na ci lu tollook fukki milliards ak ñeent fas yéene ko rek yóbbu foofee ca Qatar ngir rek gaynde yi Sénégal rek mën a amal bi la jongante ci jàmmak salaam waaye rek ngir jongante boobu rek ñoom ñu mën koo amal ci xel mu dal. alxayri ndiki démb yemoo ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak ñeent ci weer bi ñu nekk moom nag di Kumba Ndaw am na li nga xam ni moom la olof naan borom kër waaye mbokki internetu SENactu TV tey nag li lañ leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne YouTube SENactu TV